bismillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi nu sante yàlla jullit yonte bi sant suñuy waajur ñu ngi leen di baalowaax di leen di baalaaq ak suñu émission loisir ak kan ñaan ko Xaadim Njaak fan ci 313 digital ak ki koy présenté muy Mamour kon Xaadim ñu war a waxtaan ci wàllu lan ci wàllu tukki ñi daw génn ak ñi génnoon daw ñibbisiwaat ak li xew fépp moom daal dinañ wax lépp loo xamante ne daal dépendre na rek ci émission bi xaadim asalaamaaleykum. aleykum asalaam Mamour Meng maa ngi lay siyaar di rafetlu invitation bi kontaan naa si trop. waaw immigration man boo ma ci laajee. Hmm. war naa ci mën a wax tuuti parce que j'ai fait neuf ans immigration. waaw am na nag loo xamante ne nii jàng naa ko fa. bari na hmm. trop. ci côté positif ak mhm. négatif. dëgg la. Maroc laa nekk Casablanca. Mhm. xëy na peut-être ñu bari xam nañ ma fa. Mhm. waaw boo ma ci laajee nag question daf may neex trop trop trop parce que tukki dafa metti dëgg la tukki dafa metti rax si dolli suñu mbokk yi muy sénégalais yi. dañu war a gën a defaraat seen toogaay. mais est-ce que war nañoo mën a xam Khadim lu ko taxa a daw tukki lu tax mu nekk Sénégal ba ci yàgg. Mm-hmm. Khadim ndaw génn dem Maroc. réew mi moo am fu mu tollu walla réew mi moo amul nit ñi def wala da gis sa bopp ne daw génn daal mooy sa arrangement. waaw Mamour. Mm-hmm. boo gisee ma génnoon Sénégal tuuti. Mm-hmm. parce que ay ndaw lañ nekk ci dëkk bi di jaayante di dugg di génn di xëy di tës tës ba sonn. mais li ñuy sonn yëpp duñu gis njariñ bi. dëgg ñu ne léegi xaa ñu génn dem xool ailleurs. Mm-hmm. lan lañ mën a am foofu. Mm-hmm. bi yàlla dogalee tamit ñu génn dem Maroc Casablanca. Mm-hmm. suñu expérience màcc na ci lu bari. parce que man fi may wax ak yow nii man jeune entrepreneur la je gère une société. de transport messagerie express. au niveau de Casa. ok comme expérience boobu noonu rek bokkoon na ci li gënoon tax. ñu bëgg a tukki. te ba ma demee foofu tamit. Mhm. gis naa fa nekkin boo xamante ne nii marocains yi ñu ngi koy dund. ok mu nekk loo xam ne dama ci fier ci ñoom. ci wàllu dóor waar. da ko gëm quoi ñoom. waaw damay gëm a gëm seen liggéey. ok parce que damay gis ki ci gën a mag ci ki ci gën a ndaw kër goo dugg suba teel doo fa fekk kenn. parce que ñëppay xëy dem liggéey mag ak ndaw. kon ute naag fii ku baax. voilà moo tax nag. maa bëgg wax ak suñu mbokk sénégalais yi nga xamante ne ni ñoom ñi ngi fii demaguñu fenn. ñoom demaguñ bëgg dem. ñi bëgg a dem. Mhm. ñi bëgg a toog fii ñëpp. waaw su ma sañoon. Mhm. ñu jéem a roy ci yenn dëkk yi nga xamante ne nii mag day liggéey. Mhm. ndaw day liggéey góor day liggéey jigéen day liggéey. ñu àndandoo liggéey su fekkee bëgg nañ suñu Sénégal développé. waratuñ dépendre ci kenn. en plus gouvernement Sénégal man bëgg naa. Mhm. ñu bàyyi xel ñi nga xamante ne ay immigrant ay immigrant lañ. maanaam ñi nga xamante ne dañoo génn dem bitim réew. ñu bàyyi leen xel. ñu bàyyi leen xel ci benn côté. Mhm. ñu may leen ay opportunité yu tax ñu mën a exploiter seen expérience bi nga xamante ne nii jëlee nañ ko ci yeneen dëkk yoo xamante ne nekkul fii. kon ñu dooleel leen. waaw ñu dooleel ñu. fa nu nekk wala bu nu ñibbisee fii fii bu nu ñibbisee. voilà fii ci Sénégal laa bëgg ñu dooleel ñu su ko defee ñu mën a jëmale suñu réew kanam. dëgg la. ñu bàyyi ñu xel parce que am nañu expérience mhm. am nañu expérience bu bari boo xamante ne ni. Mhm. ñi toog fii demuñu fen amuñu ko. dëgg parce xam nañ loo xamante ne xam ñoom xamuñu ko. ok ok ok loolu c'est de l'expérience te bëgg nañu ko partager ak ñoom. ok mais mbaa fële amul jeune yu jógee ci réew ñëw foofu mhm. maanaam di fu def nekk su dul noonu maa ñu nekk ci leneen lu liggéey bi. waaw Maroc nag. am na ay dóorkatu waar yu fa nekk. ay mhm. guerrier ay sénégalais ñoo xamante ne man dama fi at si ñoom. liggéey la ñu gëm quoi liggéey kese lañ gëm am fulla am fayda doxuñu si dara lu ñàkk fayda. Mhm. muy góor muy jigéen. noonu tamit la amee ay boy yu ñàkk fayda yoo xamante ne nii liggéeyuñu di taxawaalu ci marché yi di def di n'importe quoi di triande di def yu kenn xamul. Mhm. yàq réputation sénégalais yëpp. dem nañ ba léegi yeneen dëkk yi. muy Camerounais yeeg Ivoiriens yi ils sont solitaires ils sont solides. Mhm. du booloo doon benn du doon benn. kon dalul leen yéen. mais sénégalais yi mënuñu booloo. booloo ndax lan ndax lan lu waral loolu. waaw man damay jàpp ne loolu soxor la wala ñàkk gëm yàlla. parce que yow wërsëgu jàmm bi yow yoroo ko man yoruma ko keneen yoroo yàlla suñu borom moo ko mhm. te yaa ngi ci dëkk yi ngi lekk yaa ngi lekk mi ngi naan yaa ngi naan kon gisuma lu jar ñu war a soxorante ñun sénégalais yi suñu biir. ok mais Mamour man mii di wax ak yow. Mhm. un jour problème avec les Marocains. Mhm. mais mbokku sénégalais yi nekkoon foofu ñëpp dañoo daw. seetaan la. waaw ma jaayanteeg maroon Marocains yi fi ma yàlla dimbale. mais lu waroon problème bi maanaam ci cadre nan la woon. waaw xam nga yi ñoom. Mhm. dañu solidaire. Mhm. tey jii yow boo roon xeex ak seen benn mbokk ak lu ngeen mën a jote ñoom seen yoon nekk. duñ la déglu yow sénégalais bi. duñ la déglu seen mbokk la ñuy déglu. seen mbokk lañuy ñuy déglu ba pare dañ lay sot. yooyu noonu yëpp mi ngi xew biir mag mhm. en plus privilège yi nga xamante ne woon ñun sénégalais yi amoon nañ ko ci biir Maroc mhm. lu ci ëpp dafa yàqu mhm. te li ko yàq mooy lan suñu comportement ñun dañuy jël suñu dund fii senegal bëgg ko yóbbu dëkku jàmbur loolu li ñuy yàqal ci lu bari la loolu ci la bokk ci la bokk maanaam ci ban wàll ci wàllu tapage nocturne ok perturbé di def loo xamante ne nii waa dëkk bi fekkoo leen ñu koy def comprendre nga. dëgg la dëgg nekk si kër yi dafa ay nekk fa ay nit yu bari. ci di perturber déranger immeuble bi. mel na ku nekk seen réew. mel na ku nekk sa réew te loolu war ñu day dafa nekk ay comportement yoo xamante ne. Mhm. sénégalais de l'étranger yi dañ ko war di bàyyi xel. yow tey loo digal ku bëgg a dem Maroc liggéey mbaa nga bëgg a génn dem tukki liggéey loo koy digal tey ji yan conseil nga koy jox bu fekkee dafa jóg rek ngir liggéey te bu demee tamit li muy bëgg dana ko fekk mbaa dina ko am nan lay doxalee yow mi demoon ba dikkaat. waaw Maroc moom. Mhm. man def naa fa 9 ans. Mhm. aw mu problème ak kenn. Mhm. alhamdulilah ma koy sante Serigne Touba bu baax. parce que ma xëyee maa sama liggéey. su ma wàccee maa sama kër. dëgg la macha allah. te xam naa ne tamit ku fa bëgg ñëw liggéey. boo ko tegee ci mesure yooyu man gëm naa ne di nga ci génn te di nga nekk ci jàmm. fulla ak fayda liggéey yem. maanaam kon léegi mais kon jeunes senegal yi fi nekk ñoom lan ngeen di conseil ñoom ca nga nu dem ñoom. ñu toog fii liggéey. bañ a hmm. xeeb dara. ok bañ a xeeb dara. heure boo xëyee nga génn sa kër. bàyyi tëdd nelaw ba une heure. treize hmm. heures. Hmm. doxalul réew. doxalul réew du yoon de gis nga liggéey doo xaar kenn di la ko utal. déedéet. yow yaay open mind yow yaay ibbi sa xel. nga jëm a créer benn affaire boo xamante ne nii ça peut te rapporter même su fekkee ne juróomi dërëm nga ciy am par jour bu yàggee ça va devenir quelque chose dañ toog gëm suñu bopp liggéey fii. man mii di waxee yow sax bëggatuma liggéey à l'extérieur parce que expérience bi ma gagné foofu yëpp dama ko bëgg a liggéey fii. ak sama doomu réew voilà. ok parce que déjà def naa fii presque cinq mois. 5 mois te léegi waral ma gën a toog fii nii. loolu ci la bokk jàngaat xool jàngaat société bi. seet ba xam mais ba tey dañu ralentir. ba tey doxuñu doxuñu liggéey booy nangu liggéey. da ngay xëy gis ay 15 personnes ñuy taxawaalu ci mbedd mi. ok ne ci mbedd mi taxawaalu. te dañuy gis lu ñu mën a def. te duñ ko def lu bari mais duñ ko def. te boo waxee ñu ne Sénégal amul liggéey. déedéet Sénégal am na liggéey yaa koy utal sa bopp. mu ngi si. yaa essayé créé. non am na parce que ñu li ñu bëgg dañoo toll gudd niveau boobu. ndax li naan ndar xëyut sotti. déedéet dafay am. Mhm. moom ma xaw a yéem tamit ma gis euh, jigéen ñi ma gis jigéen ñi dañoo ñime trop Maroc. waaw xale yu jigéen ñi. Mhm. am na ñoo xamante ne nag ñu ngi Maroc. man ndax dafa bari xale bu jigéen bu ma dégg rek moo mm. damay dem Maroc léegi GP la damay dem Maroc te loolu lu waral loolu. waaw bari na nag bari na xale yu jigéen ñu bari yoo xamante ne ñu ngi Maroc. waaw ñii ñu ngi ci GP yi. waaw ñii ñu ngi ci marché bi. Mhm. ñii ñu ngi ci rasta asi rasta yi di lett. Mhm. ñii ñu ngi jaay. ñu ngi ci centre li ma ciy gën a dégg. waaw maanaam nga baal ma ci wax ci. Mhm. ña fay jaay seen bopp dafa ëpp. ndaxte ku ma wax rek. Mhm. mu ne ma nga Maroc ci lam fa nekk lam fa nekk lam fa nekk waaye nag dina wax ju yegg dafa ko moom. Mhm. ndax loolu yow ma nekk Maroc daf fa juróom-ñeenti at. jàpp naa dëkk ba dara mënu la faa ump. ndax loolu am na fa wala amu fa. waaw bari na am na ba sax laay wax. bu ñu waxalee yàlla moom. waaw. na jigéen yoo xamante xamuñu lu dul jaay seen bopp. fu ñu mën a dem ci àdduna dañuy jaay seen bopp. dëgg la. am na ñu ma fa gis nag mais intéressé wu ma. dëgg la. intéressé wu ma moo tax. waxoo mën a xam lu bari. waaw mm-hmm. ah, mais bari nañ fa trop ñu jaay seen bopp noonu la bëree tamit jigéen yu am fulla nangoo liggéey. waaw waaw yu am jàmbaarte. waaw ay jigéen yu am fulla nangoo liggéey xam naa ci ñu bëree bëri bëri bëri. maay xëyandoog ñoom ci marché bi di wàccandoog ñoom ci marché bi di leen gis ñuy dóor waar. ñuy bari nañ trop macha allah. dëgg la xasaalika noonu la amee ñu ñu zaayee jaar beneen bor. est-ce que ñi dem beneen bor ëpp ñu ñu jubal. man nag ñi jubal laa gën a nekkal. ñoom ngay nekkal ne kon daal ñuy dëngal benn bor la nekkee. waaw xam nga ñuy dëngal moom dañuy dem ci restaurant restaurant yeeg. Mhm. boîte yeeg yaa ma gën a xam. te man sama tànk bariwul foofu. moo tax xam naa ne duma ciy mën a gis ñu bari. mais am na. am na de. mooy kon yow léegi yow looy conseil jigéen ñi bëgg a dem te amuñu parce que dafa doon dégg ay jamono dañ leen di jël yóbbu leen te seen i passeport yóbbu leen ay naar ñoom ki leen yóbbu moo téye seen kayit li leen naar feeñ kookoo koy waxaale. parfois daa nga dégg xale bu jigéen bu bu sonn def ay déclaration ki ma indi woon gisuma ko naar bi sonal na ma loolu daal dañ koy dégg te dégg naa naar doon leen muñalul dégg naa ñu naan naar marocain muñalul jànq ya fa ne waaw condition yi leen di yóbbu dégg naa dafa xaw a compliqué. ndax jotoon naa ci am lu mel noonu. waaw loolu amoon na fa nag. mais sa dernier temps nag gis naa nag ne wàññeeku na bu bëri. waaw man xam bon dégg naa nag xaw na wàññeeku moom. Ah, waaye amoon na fa nag parce naar yi dañ doon jël du sax naar ay sénégalais yu nekk foofu la. Mhm. ñoo la daan wax am utal la liggéey. waaw financé la billet tout. lépp waaw mu ñëw après ñu la naar bi. naar bi nag pour mesure de sécurité y' a pas contrat. day préféré téye sa passeport. Mhm. loolu mooy indi téye këyit mhm. mais lay xew ci biir kër gi nag parce mhm. naar moom bu la fayee danga koy liggéeyal lim la fay ok bu la fayee da nga koy liggéeyal lim la fay dañ fay par def du bëgg laa def jàmm ah naar de moom mhm. bu la leeree moo lay fay moom saa yi moom da ngay liggéey comme mbaam da lay sonal de waaw moom amuñu kersa ci loolu est-ce que am na yërmande seenum liggéey dégg naa amuñu yërmande de waaw man de ci coté commerce bi côté commerce bi moom man naar yi ma séqal naa quoi na ngi seqal naa si. mais mais foofu seen dëkkuwaay ku méttiwul location bi yooyu. bonne question lu ñu mën a dimbali ci location Maroc. Mhm. état nañu si dimbali parce que c' maanaam du doo liggéey fay ko location. doo liggéey fay nga dem ci toilette rek. da ngay fay un. Mhm. da ngay fay un dirham. pour dem ci toilette rek. pour nga dem jàpp julli jaamu suñu borom. maanaam un dirham boo ko doon fukk fii mooy ñaata. day tolloog ay fukk ak ñaar. ay 60 francs waaw ok mooy seen 1 franc. comprendre Maroc amul looy def te doo fay rien n'est gratuit là ok stationné sa oto da ngay fay. parking da ngay fay lépp da ngay fay ils sont très bien organisés macha allah. ci côté boobu. ok mais da ngay gis sax benn quartier ngay dugg marocain booy dëkk ci quartier bi amuñu liggéey. Mhm. mais dinañ xëy dem ut gilet toog di stationné. oto yi gaare ci biir quartier bi. si si si si. da leen di rapporter quelque chose. da leen di jëlal dara ok. comprendre loolu noonu man dama bëgg ñun sénégalais ñu jël ci ay référence non pourtant ñi ngi góorgóorlu ci boor boobu nag. message ah. mais état moo ko téye moo tax. état moo koy jox booy wax ko compliqué. Ah. yow léegi nag bon jeunesse Sénégal bi nga xamante li nu jël. Hmm. tuxum yamba nangu xëy rek kay seen métier. ñooñ nag bëgg naa tamit boo waxee ñun dana bëgg a génn utal xëy noo duma ut xëy man génn laa bëgg sonal seen mbokk yi léegi cee ñoom yéen moo ngi leen di dénk waaw jeunesse Sénégal balaa ma leen di dénk dara lu ma leen di njëkk a wax mhm. mooy ñu bàyyi di nax seen bopp gis nga sa dëkk bi nga nekk mhm. su fekkee nekkoo nit ku ambitieux ku nangu liggéey foo dem ci àdduna doo liggéey parce que man mi di wax yow gis naa Séné Casablanca ay sénégalais yoo xamante ne liggéeyuñu defuñu fa dara. non taxawaalu rek rek dañuy xëy di taxawaalu ci marché bi. suba ba te jóge ba bari na fa trop. bëgg di naxe kon. Ah, mais boo nang boo liggéeyul leneen lan ngay def ñaanaatu nga fay nekkee fay affaire yu ñàkk fay kese. booy man dama bëgg ñu gëm seen bopp. ñu mhm. liggéey bañ a benn liggéey. Mhm. Sénégal suñu réew la ñun ñoo ko moom. te en plus nañ bàyyi naxante bi quoi sénégalais ak sénégalais turiande yeeg wax ak nit kàddu muy dañ yooyu du mooy avancé loo réew. ndoxul léegi kàddoom amatul valeur fenn. loo ko gëm dem nañ ba léegi kenn bëggul jëflanteeg sénégalais kenn bëggul jëflanteeg sénégalais ndax lu ñuy wax a yow du lu dëggu ci ñoom. safaan wa. waaw ah. teg fa leen lu amul. noonu la demee yooyu noonu dañ ko war a bàyyi. fekk mhm. bàyyiwuñu genre habitude yooyu noonu ñun yaakaaruma ñu avancé dans la vie te suñu senegal ñun ñoo ko mën a tabaxal suñu bopp ñun jeunesse bi mooy yoon mooy ñun jeunesse bi ñoo ko war a tabaxal suñu bopp ñun ñoo ko war a futteeku liggéey ku nekk liggéey sa côté bu mhm. yàggee mais day jëm kanam dañ ciy génn dañ ciy gis sa bopp loolu daal laa xam ne am naa mhm. lu ma leen ko mën a wax mooy ñu bàyyi seen caaxaan yi ay tux ay naan yooyu noonu yëpp amul benn sens amul sens da lay jéem a jóg sa life dañ jóg te bañ a xeeb seen seen ndig bañ a xeeb essayer de créer créer ay moo gën liggéey jéemal liggéey quoi parce que heure boo xëyee gis nga loo mën a def pour am ci dara. mais moo yoon loolu laa Sénégal ñàkkul liggéey ñu ñu bëggut a liggéey. mooy nanguwuñu liggéey. mais wala la nga bëgg niveau ba nga bëgg a toll pour liggéey ko mënoo faa yegg. mais da ngay loolu laa gëm. man en 2013 ba may dem Maroc man yóbbaale ma dara. loolu leer na. alhamdulilah yàlla dimbali ma maa ngi sama place. di liggéey hmm, loolu leer na. maa ngi diriger sama entreprise. dëgg la alhamdulilah. yaa ngi koy gérer. waaw dëgg la te loolu ma rek am ko. déedéet. dox naa ci taw bi dox ci naaj bi dox ci ay affaire yu bari. te xëy di ambulant lépp def naa ko. day am day am. ba yàlla yeggale ma foofu alhamdulilah. sant yàlla bu baax. gëm-gëm boobu nag laa bëgg mu nekk si ñoom. ci jeunesse bi. waaw jeunesse su nañ bàyyi taxawaal bi te jóg liggéey. nañ liggéey quoi. yow tey boo doon am lu la naqari ci waa ci naar yi ci Maroc. wala ña nga fa nekk lan nga leen di conseillé loo xam ne nekk nga ak ñoom mu métti la mbaa naar def la loo fa métti loo xamante ne kuy demit dee ko moytu maam pour teg nit ñi ci yoon nga ne ku fa demal nga xam nooy doxee ngala bu ne bër dama dem marto xamoo noo fa demee noo fay doxee dëkk jàmbur la boo ku fa duggati loo koy conseillé ku fa bëgg dem loo koy conseillé ña fa ne loo leen di digal. nekk euh, Maroc. Mhm. yooyu sénégalais leen di digal xam nga mooy lan. Mhm. mooy ñu jóg sàmm seen kàddu te liggéey. naar yi amuñu benn problème baat boobu neex na la bu ma déggee sa wax ji. Mhm. maam day mel ne da nga faa nit loo xamante ne da wor. baa mu def naka sudut noonu. bari na duñ ci wax nag loolu. amul ah, garaaw bari na trop. mais on l'espace paapin waaw. comme ñu ngi dund rek. alhamdulilah waaw loolu jar a sant. mais sénégalais yi nekk Maroc dañu defaraat seen toogaay parce que privilège yi ni amoon Maroc yëpp. ñu ngi mhm. koy ñàkk ndax suñu comportement. te loolu dafa ñaaw ñi ñuy doxee baaxut. non man ah li ma gis bokk parce que dëkk naa fa ay nit yu ma xamul. Mhm. nekk naa ak ay nit yoo xamante ne foofu lañ daja xaw ma leen xamuñu ma. Mhm. man ci sama wàll maa ngi sàmm li ma mën sama diggante ak ñoom aw ak benn naar problème man aw ma fa ak benn naar naar tegu la benn coono. non non aw ma benn problème ak naar. maa ngi xëy liggéey xëy na peut-être tamit li ma nekk ci sama coin di job moo tax di delluwaat sama kër. Mhm. xëy na loolu moom ma musal ci problème yi ak naar mais am na yenn quartier yoo xamante ne ni boo fa dëkkee. Mhm. am na ay agression yu mel ne ay ulfa. mais mais mais agresseurs yi yan race la ñuy doon mbaa Sénégal yi bokkuñu ci. non ay marocain. yu agressé waaw marocain yi ñooy agressé foofu. parce que yenn quartier yi marocain yi dañu sadik. duñu baale. non ñu ngi def nit ñi ñoom xàmmeewuñu sénégalais xàmmeewuñu nigérien xàmmeewuñu camerounais xàmmeewuñu kenn mais yenn heure yi tamit membre bu fekkee ne yaa ngi koy dox nekk si dëkku jàmbur. yaa ngi tooñ sa bopp. nekkatoo ci sëñ. non da ngay xaru. mais eh, gëm naa ne daal bu fekkee ne ñu ngi xëy di liggéey. Mm-hmm. di waaj di dem seen kër tranquille gëm naa ne yàlla dina leen musal ci lu bari quoi. dëgg la nañ sàmm kàddu yi daal. moo ci ëpp solo moo ci moo ci ëpp solo. parce léegi kàddu sénégalais amatul valeur fenn. kon daal maanaam nit ku ñuul daal maanaam surtout ñun daal bu ñu jiiteel suñu bopp daal suñuy wax moom compté tut. da ngay wax ak nit man damay jëflante ay canadien ay ay américain français italien. Hmm. fële race bu nekk mi ngi foofu. bu doon laa dégg. man damay jëflanteeg ñu bëri. mais kàddu daal pour ñu gëm la. Hmm. foog nga woon leen ñu gis. ok ñoom daal seen bët leen mën a may. mais kon kàddu sénégalais nii wax ak nit ñi rek. dana naan defal ma. léegi looy dégg état ak étranger yi nekk ci àll bi maanaam ban ndimbal ngay ñaan ngeen di ñaan état bi wala seen ambassade yi pour ñu mën cee jàpp lañ cee dimbalu yombalal leen ko. waaw état bi moom. li ma leen di ñaan mooy ñu dimbali émigré yi ñi nga xamante ne ñu ngi bitim réew. waa diaspora bi yëpp nag ñëpp je parle général. nañu dimbali may ñu ay opportunité yu tax ñu mën a dellu si indaale suñu expérience fii indi ko ñu ah. ubbul la ngeen mën ko fee liggéey wala. waaw non ñu ñu ñu may ñu ay ubbil ñu ay porte ay privilège quoi waaw boo la ñëwee ngeen mën ci sukkandiku ñu mën ci sukkandiku mën a liggéey. parce que gis nga nit boo ñëwee si mais da gis ay ay société étranger dañuy ñëw fii dañuy liggéey tranquille mm-hmm. mais loolu noon jox Sénégalais tijji woon ko mm-hmm. ñu ko koy euh, utal ko ay privilège comme privilège yu nu may société étrangère yi bu ñu ko defalee tamit mais ñu on va investir ici dañu investir mais bu fekkee dañ lay commencé tam ça devient difficile day metti day metti day metti day metti loolu daal laa bëgg mm-hmm. état bi dimbaluñu ci ak location yi cher na trop. location yi cher na trop état bi jàpp ci. nañ ci nañu fi dimbali trop. jéem a wax ak ñooñu. ñu ngi tabax ay cité comprendre nga def ko ay location vente pour les pauvretés. maanaam fu ñuy def cité yi foofu wala fii. non fii Sénégal Sénégal. man fii moo tax may wax. pour ñu di ok maanaam fii yàlla location dafa cher fii dëkk bi. dafa cher. pour ñu jàppale ñu ci. jàppale ñu parce que wàññil ñu ko. wàññil ñu ko labal gars yi kër yi ñu. ñu fay waaw waaw waaw. facilité. boo jàpp naa daal am kër. non mooy dëgg li nga xam moom loolu lu ba lu jar a bàyyi xel la. na nañu dimbali néew doole yi te noonu la leen di mën a dimbali. ndax fii Sénégal boo xoolee ni muy doxee dafa yéeme. dafa metti ñi mën démb mënoon tey ba tey. Mhm. ñi yoru woon yoruñu ba tey. Ah, te nag situation day changé. Mhm. mën nañ liggéey li lebal ko néew doole yi. Ah. mbaa sax dam na mën koo sañ a mën a may néew doole yi. mais toujours ñi ngi doole ñu am doole. ah la ñuy jox. bulletin de construction lépp. ñu moom noo mën a di fay ñaari nit jeex na après baadoole yi ñoo ñëw waaw waaw maanaam li naan rongo ñu baadoole ñu siime ci rey buur loolu dafa moom ci Sénégal mais loolu état bi war na ci mën dara na ci wax nag war na cee mën a wax tabax ay cité ku am bulletin de salaire ñu labal la di la dagg par mois facilité la loolu yombal yombalal la ko ba amul bulletin de salaire ñu xool xool ñu am pexe pour fexe not jotee rek eh, man dama gis système boobu ci marocain yi boo hmm. amee bulletin de salaire banque bi dalay labal kër dalay labal oto hmm. di la ko dagg mais 17 ans 18 ans 19 ans da ngay am appartement yow marocain ngay génn sa kër pap dem jël sa benn appartement di ko fay. moo gën mais pourquoi pas ñun tamit Sénégal waruñu am loolu. kon daal ñu jéem a raw ci marocain ni ñuy mais neex na ma trop. maanaam daal bu ñu curee jàpp nga daal dëkk bi dina avancé. mais bien sûr mais boo tabaxee ay cité. Mhm. lebal ko ñuy liggéey ñu am foyer fayatuñu location li ñuy fay ñoom ñoo ko mhm. xam loolu facilité la. kon baax na. te dëkk bi bari na àll yoo xamante ne mën nañ fa tabax lu ne. lu na xaj na fi lu na xaj na lu na xaj na fi. def loolu quoi lu na xaj na fi. waaw kon nag léegi man nag xale jigéen bëgg a tukki kon maa leen dem li mbaa maa leen toog leen. ñu ah. bëgg dem Maroc lan laa leen di wax. ku ci am fula nangoo liggéey mën ngaa dem. mais xanaa liggéey bi am mooy liggéey ci kër laay jàpp ne ñëpp xanaa moom bëgg a liggéey. non am na liggéey kër am na centre d'appel am na transport GP yooyu noonu bëri na daal liggéey expérience la daal boo xamante ne da nga koy gañee développé ko mu doon daal. kon daal ku am fulla ak fayda bëgg sa bopp. mën ngaa def xam ni loo yóbbu. ku caaxaan tax a jug tamit. boo demee boo demee mi ngi foofu comme day sëkk dëgg la kon nag ñu bàyyi la nga nuyu te ñu ñu tëj émission bi. Ah. nga gërëm ñi ngay gërëm gërëm waa Maroc. Mm. wax ñëpp nga xam ne lii moom site bi international la. 300 Télé Digital dafa wër àdduna. kon nag képp koo xamante ne moom bëgg nga ko nuyu rek nuyu ko te xam ne dina ci jot. waaw maa ngi sant sëriñ Touba bu baax a baax. waaw kooku jërëjëf sant. di la sant bu baax. Mhm. di sant sant suñu caméraman. waaw maam Thierno borom daaru sant sama pap sama yaay. Mhm. sama famille. dëgg la sama famille yëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax ak samay doom. Mhm. di sant àdduna yëpp. di ñaanal yàlla ñëpp am jàmm. yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm. may ñëpp ay xewal. ci barke borom Touba kontaan naa trop. di nuyu waa Maroc. sama naar yi den wax na ana raja allah maa ngi ñëw Maroc maa ngi dellu si waat waaw mu kontaan nañ bëgg na lool ci yow kontaan nañu bëgg nañ trop ci nuyoo bi di la xamal ne leen kii mooy Xaadim Diack doomu Sénégal juddoo fi yaroo fi màgge fi demoon Maroc delsi ne ci ay projet yoo xamante ne réew mi yëpp xaj nañ ci état nag ñi mel ni dañ leen war a jàppale war leen a dooleel ndax ay jeunes lañ ñëw nañ pour bëgg a dëkk bi pour jéem fee def lu ne mais toujours day xaw a métti te nit ki amul lu dul sa réew. moo naa toog ca Maroc dafa lam fay def mais gisut loolu ñëw Sénégal moo ko yor liggéey Sénégal moo ko ñor nekk waa Sénégal ñoo ko ñor mu ne nag jeunesse Sénégal roy leen ci waa Maroc amut nelaw ba 10 heures mbaa 11 heures teel a xëy teel a wàcc mooy loolu waaye Sénégal kër goo dugg da ngay rus a nga diw yeewoo gut